لله رب العالمين مالك الملك مؤتي الملك من يشاء ونازع الملك ممن يشاء امر باقامه الشهاده لوجهه فقال واقيموا الشهاده لله واشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه فاللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه واسنى خديمه وبعد أيها الإخوة المؤمنون بعد يومين يذهب كثير من المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس البلد خلال الخمس سنوات القادمة وهذا التصويت الذي سنقوم به قال العلماء بأنه من باب الشهادة والشهادة أيها الإخوة المؤمنون مسؤولية عظيمة حيث إن إقامتها عند وجود دواعيها تكليف إلهي قال تعالى وأقيموا الشهادة لله وحرم سبحانه كتمانها فقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما نهى أيضا عن التقاعس عنها عند الدعوة إليها ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والله تعالى قد شرع الشهادة لإحقاق الحق ونشر العدل بين الناس ومع اقتراب الانتخابات ندعو الجميع إلى التزام الهدوء والرزانة واجتناب الفتنة وكل ما يؤدي إليها فالفترة المقبلة التي تجرى فيها الانتخابات وتعلن فيها النتائج فترة حرجة نحتاج فيها بصفة خاصة إلى التعقل والرزانة أيها الإخوة المؤمنون إن التصرف المسؤول في الفترة المقبلة هو أن يؤدي كل طرف في العملية الانتخابية دوره بالعدل والقسط فعلى المسؤولين عن تنظيم الانتخابات اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تيسر للناخبين ممارسة حقهم التي تخولهم إياها المواطنة بشكل عادل ونزيه وعلى الناخبين أن يدلوا بأصواتهم في سكينة وهدوء وعلى المسؤولين عن فرز الأصوات وعدها والمسؤولين عن اعتماد النتائج النهائية وإعلانها أن يؤدوا دورهم بالعدالة ñoo ngi sant تبارك وتعالى tabaraka موم taala moom moom nguur di ko jox ku ko soob di ko jële ci loxol ku ko soob mu digle moom borom bi tabaraka wa taala ne bu seere jotee nañuy taxaw di seere te jëmam rekk tax mu wax ni ci alquran wa aqimu shahadata lillah na ngeen taxawal seere te jëmmi sunu borom rekk tax di seere ne amul benn buur bu yeyoo jaamu bu dul sunu borom tabaraka wa taala moomu di seere ne it sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamama di ndawam di tànneefam di soppeem ñuy ñaan sunu borom tabaraka wa mu dolli xéewal ko mucc ci moom ak i njabootam ak i saxaabaam ak ci liggéeykatam bu mag bii bokki jullit yi gannaaw ñaari fan incha allahu lu bari ci waa réew mi danañ dem ci li ñu tudde voté ngir war a tànn ki war a jiite réew mi ci juróomi at yi ñu degmal vote boobu ñuy def nag bokk yi boroom xam-xam yi dañoo wax ne at teb seere la taxawee seere nag responsabilité bu rëy la warteefu mag la woo xam ne sunu boroom moo digle ne saa yoo xamee ne lii waral ñu war koo def am na nañ ko taxawee nañ ko war a taxawee te buñ koy def yàlla rek tax mu waxaat ci alquran itam ne xaraamal na ñu war koo def ba noppi di ko nëbbu mu wax ne bu leen nëbbu seere ndax képp ku ko nëbbu te war koo joxe dana ca jële bàkkaar ca nëbbu googee mu ko nëbbu tere it ci alquran ñu war a seere ba noppi wala ñu wooñu ñu war a seere ba noppi ñu bañ caa dem bañ koo taxawe ngir am yeneeni mbir xaj na yu ñu gën a yitteel ca loola mu wax ne ñi nga xam ne ñoo yelloo seere te man koo def bu ñu bañ a seere mukk bu dee dañ leen a woo ci ñor ko def li tax du lenn lu dul ñàkk nangoo taxaw euh, ñàkk taxaw seere ci waxtu wi ko nit ki war a def sabab ya daje daa bokk ci li mën a jur nit ki amoon àq joo xam ne waroon na caa mën a jot te mu mën a sànk ba du ca jot te nag sunu borom tabaraka wa taala bu diglee seere liko ko tax a jóg du dara lu saxal lu war sax ak tasaare ak màndu ci diggante jàmm ñi ba kenn ku nekk lay xaqam mu jot ca nam jote ci loolu nag bokk yi kon tan googu jege na ñoo ngi woo ñëpp di ci jiital sunu bopp ci ak dal ak taqoo ki teggin ak jëfandikoo sunuy xel aku tënku te wattandiku lépp loo xam ne fitna la wala mu mën a jur fitna ndax fan yi ñu dëgmal niñ ko baaxoo xamee saa yu nekk muy jamono yi nga xam ne ci lañuy def tànn googu ak la cay topp ñu war a joxe résultat yi ciy juddoo jamono la joo xam ne laaj na buñ ci tolloo ñun ñëpp ñu gën a jëfandikoo suñuy xel jiital ko ci suñuy xol te gën a taqoo akuk dal gën a taqoo ak i ak doxin wi nga xam ne doomu aadama ju responsable ne la war a doxe bokki jullit yi doxin wi nga xam ne nag kenn ku nekk ci ñun moom la war a sàlloo rawatina ci jamono yi ñu jëm ci wot bi man ngaa wax ne mën nañ koo tënk ci ñeenti warteef la ca jëkk mooy ñi nga xam ne ñoom la suñ boroom dogal saytu tànn googu nekk ci seeni loxo mooy élection yi seen warteef man nañ koo tënk ci war nañoo taxaw ci lépp loo xam ne ay saytu la ak luy tax ba nit ñi dem di tànni lañ bëgg a def te sarti réew mi may leen ko wala mu sàkku ko ci ñoom mu jàppandi ci ñoom ñu mën koo def nañ ko bëgg a defee nañ ko war a defee loolu mooy seen warteef ñoom ñoo ñu yor saytu boobu ñi nga xam ne it ñoo war a dem di tànni seen warteef mi ngi tënku ci bu waxtu wa jotee ñu jóg dem defi lañ war a def te buñ demee ñu def ko te ànd akuk dal te ànd akuk teggin ànd itam jëfandikoo seeni xel ñi nga xam ne waññi kart yi ak saytu ko ci seen loxo la nekk ñoom it lay seen warteef ñoom ak ñi nga xam ne ñoo war a tasaare résultat yi ciy juddoo ëllëg seen warteef mooy la ñuy def war nañ koo def ci ragal yàlla te def ko ci màndu bu noppee nag ñun ñëpp ñu àndaat war a taqoo ku ragal sunu borom tabaraka wa taala ci sunuy jëf te xam ne amul benn jëf wala jenn jëf ju ab jaam di def ci kaw suuf mu néew mu bari mu tuuti mu rëy lu dul ne sunu borom yitte woon a jëf jooje jaam bi amul jenn jëf ju muy def juy neen ci kaw suuf bokk na ci njuumte yi gën a mag wax gi ñuy faral di wax ne politique wala lu ni mel adduna rek la yam bokki jullit yi faaw ñu xam ne ab jaam rawatina ab jullit amul jenn jëf jumi muy jëf ju yam jëpp jëf ju jëf dana gis pay ga dana gis la muy jur ëllëg yamal xiyaam moo xam muy lu baax moo xam muy safaan ba bokk yi bu dee na nag am nañ tawféex yi taxawe taxawaay yi ñu war a taxawe ñun ñëpp ci ay tolluwaay yu wuute la ca war a tege nag mooy buñ ca jógee la juddoo ca tànn googee ñun ñëpp ñu maase ànd ci nangu ko ànd ci am ca xol bu sedd guyu ak dënn bu yaatu ndax nag boobaa dañu xam na nag li ëpp ci mbooloo mi liñ fañ xëcc jëm lii moo koy jëmmal bu ko defee nag ñu daal di loolu jàll ci yeneen i mbir nag ndax it faaw ñu xam ne dëgg la politique am na solo lool ci dund gi waaye doonul ne moom rek kay dund gi nag am na yeneen mbir yu fi nekk yoo xam ne war sa caa dem war sa caa jublu jiwaat nag ndax bari na yuñ sàggane woon lool ab diir a ngi nii kenn ku nekk ci ñu nit xam nag ne bu demee def wartéefam ba tànn ka nga xam ne moom la jàpp ne moom la doyloo ba tànn ko ba noppi mu xam ne nag kaddu gu mujj gi moom ci loxol mbooloo mi la nekk waaye nekkul ci sa loxo yow yow la nga war def def nga ko mbooloo mi itam lañ jàpp ne moom lañ ñu war a def def nañ ko la ca tege nag mooy la ëpp fa mu jëm rek nga xam ne loola mooy fa mbooloo ma jëm loolu mooy li yàlla dogal bokki jullit yi tànn gi ñuy bëgg a def mat naa bàyyi xel ne ak mboolem li ci aju lépp rek muy campagne bi ko jiitoog la ca tege lépp mat naa bàyyi xel ne luy jaar di jàll rek la te as ndiir su gàtt lay doon yàggut lépp boo ko dajalee du mat ñaari weer kon loolu lañ ca war a jële bokk na ci ñu xam ne jaaduwul yellut rafetut itam tegewut itam ci xel mu rafet ñu war a sàggan ba buñ ci tollee muy yàq relation yi nga xam ne moo dox suñ diggante moo xam ak mbokkuk deret la moo xam ak dëkkandoo la moo xam mbokkuk diine la gu dox suñ diggante suñu kilifa war yooyu ñu mel li ëpp solo nag ci nattukaay yi nga xam ne moom lañu war a nattee moom lañu war a sàmm itam ci bu ñuy tànn ku ñuy woteel ngir jàpp ne moo yelloo loolu sunu borom tabaraka wa taala tënkal nañu ko ci xisab sayiduna yusuf ak xisab sayiduna musa alayhim assalaam ci xisab sayiduna yusuf sayiduna yusuf alayhi salaam dafa laajoon buur ba ne ko na ko jox ak pal na ko jox lu jëm ci saytu koomum réew mi layale wax jane ko ndax ñaari melokaan yii yu ci munta ñàkk moom am na ko benn bi mooy am na xam-xamu bu ko ko may ñaareel bi itam am na xereñu mën a wattu ca xisab sayidna Muusa alayhi salaam ñaari doomi sayidna Shuayb ya kenn ka ba muy wax waaye juróom ne ko na jël Muusa mii mu leen di liggéey daga ko jàppale bokk na ca lam waxoon daf koo wax ne ko képp ko mën di tànn ngir di ko jël ngir mu lay liggéeyal ka ca ëpp solo mooy koo xam ne ko am kattan la teyit ku wóor la kon bokk yi buñ ci dajalee ci ñeent yooyu dañ ciy génn ne ñeenti melokaan yi mooy yi ñu war a tànn ci képp ku ñuy tànn war nañ koo xool ci moom te mooy xam-xam ak am xereñu mën a saytu am kattan ak itam doon koo xam ne ku wóor la ñu war a wattandiku it nag bu baax ci bu ñuy tànn tànn koo xam ne la koy tax di tànn du yii waaye dañ koy tànn ngir dañoo bokk ak moom aw xeet wala dañoo bokk moom ab dëkk wala dañoo bokk ak moom diine wala dañoo bokk ak moom laneen ndax yooyu yëpp dëgg la yu baax la yu am solo la waaye ci yeneeni barab ak ci yeneeni situation dañ ko war a sédde waaye du barab bii du tolluwaay bu mel nii te nag fal koo xam ne yelloo wut a fal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne saa yu nit seere ci nit moroomum jullitam te seere sa doonut lu wér na ko wóor ne yool ba mu cay jëlee ëllëg mooy sawara wala yaasu billahi taala kon ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ci sunu tànn te tànnal ñu itam ki gën ci ñun koo xam ne yiwu jaam ñi ak njariñul réew mi dana ko saytu na mu ko war a saytoo te di ko ñaan itam mu bañ a jiital suñ kanam mukk koo xam ne du ñu yërëm du ñu saytoo nam ñu war a say ñu war a saytoo di ko ñaan moom sunu borom mu defal ñu sunu réew mi muy réew mu mucc ànd akuk dal te def ko ci mboolem réew yu jullit yëpp te defal ñooñu réew mi itam ñu am responsabilité ak xikma ci lépp loo xam ne lu ñuy jëf la di ko ñaan tabaraka wa taala mu may ñu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira musal ñu ci sawara sàmmal ñu sunu ngëm may ñu mujj gu rafet te defal ñu tawfiq suñu jëf yu baax yépp الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده أيها الإخوة المؤمنون حين تتم الأمور بالطريقة التي بينا يجب أن يتقبل كل منا بصدر رحب نتائج الانتخابات التي تعبر عن رأي الأغلبية وأن ننصرف إلى شؤون أخرى وليعلم كل منا أن له الحق في التعبير عن رأيه لكن الكلمة الأخيرة للأغلبية أيها الإخوة المؤمنون إن الانتخابات وكل ما يتصل بها أمر مؤقت يمر بسرعة فلا ينبغي أن نفسد بسببها العلاقات الدائمة التي تجمع بعضنا ببعض أو الممتلكات العامة التي هي لنا جميعا فكيف يقابل بعضنا بعضا إذا أفسدنا علاقات القرابة أو علاقات الجوار أو علاقاتنا المبنية على الدين وأهم المعايير والمؤهلات التي يجب مراعاتها وتوافرها فيمن نصوت له أيها الإخوة المؤمنون تتلخص في أربع خصال مذكورة في قصة يوسف وموسى عليهما السلام في قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقوله قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين وهذه الأربعة هي العلم والحفظ والقوة والأمانة ويجب الحذر من التصويت لمن ليس له أهلا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه أبو هريرة رضي الله عنه من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار فاللهم وفقنا في اختيارنا واختر لنا من في إمارته صلاح العباد والبلاد ولا تول علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين جعل الله بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وألهم أهله المسؤولية والحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي